asalaamualeykum ñoo ngi nuyu képp ku fi teew mbokk journaliste yi à travers yéen ñuy nuyu sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp ku ne ci ñoom fa nga ne muy ñi ne bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi di am mbégte comme toujours ñëw jàkkaarloo ak yéen à chaque fois bu ko actualité bi laajee à chaque fois bu ko moment de vérité laajee parce que dama koy fàttali tout le temps le seul rapport qui nous lie avec le peuple rapportu dëgg la rapportu vérité la bi ma fi mujjee keroog jàkkaarloo ak askan wi di leen gërëm nag ndaxte yàlla def na ku nekk ci ñoom ñu mën a jot ci man ak ñi nga xam ni ci ñeneen lañu jot ñu ma jege a chaque fois ñoo ngi indi di wax seen cofeel di wax seen soutien di wax seen encouragement et bi ma mujj jàkkaarloo ak sénégalais yi cofeel boobu encouragement yooyu ak soutien yooyu kenn mënul xam na mu tooy ñi ma ci jot tontu maa ngi leen di gërëm ñi nga xam ni des fois daa raté appel yi raté message yi maa ngi leen di gërëm également di gërëm sénégalais yëpp réew mi moo nu te lépp ci sunu dund dañu jël jox ko Sénégal yàgg naa koy wax di ko bamtu di ko bamtuwaat ku def vingt ans d'opposition alors que bu la neexoon nga def leneen ndaxte képp ku fi jaar soxla na la dafa fekk ni jàpp nga tout simplement que waxtu yooyu jamono yooyu ak doxalin yooyu méngoowul ak sa gis-gis méngoowul ak li nga xam ni tey moom nga war taxawee pour Sénégal loolu moo waral vingt ans yooyu te vingt yooyu ku ko def wane nga bu baax a baax a baax ni askan wi moo la ñor te ci loolu la ñuy wéyee ak fu nu mën a ne ak lu nu mën a def parce que askan wi mooy sunu raison d'entrer en politique askan wi mooy sunu raison de nous en politique yàlla def na bi ñu nekkee école polytechnique avant ñuy génn quatre mois avant lanu yàlla baaxee ñu am liggéey boobu génnaguñu sax suñu premier emploi mi ñu fekk ñu nekk encore étudiant en cinquième année bi ñu génnee dix jours lanu ñaan suñu employeur ni que nanu may ñu noppalu ginnaaw suñu diplôme pour ñëw commencer kon yàlla mi ngi ñuy suturaal ñu nekk ci liggéey boobu ba tey te liggéey liggéey pour Sénégal moo tax dans nos rapports la seule chose qui puisse exister ak bi koy mën déterminer mooy ce partage en commun muy le pays la souffrance des Sénégalais l'espoir bi nu am sur le dirigeant espoir bi ñu am ci ku ne ki nga xam ni tey da nga jóg bëgg taxaw seen wet nga mën tout temps fàtte sa bopp nekk ci ñoom li ñu bëgg bi ma fi mujjee ma ni leen ñëpp jaaxle ci que lu tax déggu leen ma gisu ma juróom benn weer yëpp mooy j'ai voulu mettre à l'aise ñii nga xam ni ñoo defandoo komba bi ñett at yi ñu génn muy le président Bassirou jomaay fay président de la République du Sénégal et le premier ministre Ousmane Sonko président de PASTEF mëni ñett at yi nu combattre ñett at yooyu nga xam ni amul lu nu dajul te sénégalais yi ñooy ay témoins ñett at yooyu fii ngeen di gis barricade nañ ko ba tàyyi ñett at yooyu fu nu jëm topp nañ ñu lu nuy bëgg wax téye nañ fu nu bëgg jëm arrêté nañ ñetti at yooyu nga xam ni tëdd nañ ci kaso pendant dix jours ñetti at yooyu nga xam ni jël nañ ci ay grenade lacrymogène lépp li ko waral mooy Sénégal lépp li ko waral mooy li ñu dikk Sénégal ñu mën ko def lépp li ko waral mooy fi nu askan wi toll ñett at yu méttee méttee métti métti mais ñetti at yi nga xam ni dafa jaadu woon ñu wan Sénégalais yi ni dara ñoruñu lu dul seen yitte dara ñoruñu lu dul li ngeen bëgg dara ñoruñu lu dul ci li ngeen nekk ak li ngeen joxoñ ñetti at yooyu ku ne xam na ni le président Macky Sall amul lu mu jéemul te seetiwuma ko guddi seetiwuma ko bëccëg làqatuwuma seeti ko defuwuma leneen ndaxte lépp lu may def rek je le fais de la manière la plus transparente possible bu ma waree avancé mettez tous les chars de combat devant moi j'avancerai parce que gisuma àdduna lu war a tax nit di def dara di ci làqatu moo tax ñett at yi kenn gisuma ak moom fenn kenn dégguma ak moom fenn te la ma ca wax bii passé doy na sëkk bi may jàkkaarloo ak sénégalais ma ni nag ñii nga xam ni yàlla def na ñett at yi ma ànd ak ñoom def xeex boobu toogoon naa juróom benn weer dégguma leen ñu jëm ci élection mu doon un moment déterminant pour un parti et une coalition ñu war a dem ci élection yooyu ma toog fii ni leen ginnaaw yàlla def na dégguma leen juróom benn weer yi ginnaaw yàlla def na toog amul pour mën a waxtaan toog amul pour mën a wax leen li ma xalaat ci Sénégal ak kaadir yi nu àndal kon dinaa dem ci coalition pour que buñ fa amee ay député bu ñu demee assemblée la ñuy wax te waroon leen ko wax bu fekkoon contact bii am na lan war a wax ñu wax ko foofu ñu koy dégg pour jëfee ko biir réew mi ndaxte kenn umpalewul ni bi ñuy jub ci élection yi coalition bi parti bi réunir na plus de trois cent cadres ñu taxawal un programme important tuddee que le Sénégal bon à vivre et beau à voir et kenn qualité cadre yooyu nga xam ne ñoo ci liggéey donc lu ñu mel ci xam-xam lu ñu mel ci xalaat day baax nga koy mën di waxtaanee soit directement ak ñi nga xam ni tey jii ñoo fi ne wala bu fekkee loolu amul nga mën par une autre voie di ko wax ñu koy dégg yàlla def na nag bi ma waxee loolu émouvoir na Sénégal yu bëree bare bett na woon aussi Sénégal yu bëree bare sénégalais yu bëree bare ñuy soogaa di yëg ni kon juróom benn weer am na fi te waxtaan boobu amul moo tax ci diggante bi koo leen xalaat kilifay diine kilifay aada homme d'affaires responsable politique koo leen mën a xalaat ci diggante boobu dox na def na délégation ñëw na kër gi parce que jàpp nañ ni loolu warul mën ne nit waru ko mën seetaan ci ñi nga xam ni foo leen mos gis gis leen ñoom ñaar foo leen mos gis gis leen ensemble te lépp li ñu mos a bëgg mooy doxal Sénégal lépp li ñu mos bëgg mooy Sénégal jëm kanam et ils ont fait des sacrifices incommensurables pour cela di gërëm toutes ces bonnes volontés parce que Sénégal danoo baaxoo lool fu ñu dégg diggante surtout diggante bu nu mos naw diggante bu nu mos jàpp ni lu rafet rek moo fa am diggante boobu ñu dox pour mu rétablir di leen gërëm et dina am ci. bu may daaneel kàddu yi ñenn ñu ma ci cité rek parce que am na ñeneen ñi nga xam ni bëgguñu sax feeñ te bare na bi loolu amee moo waral bër ki démb le président Ousmane Sonko ñu toog waxtaan au Petit Palais man ak moom ci biir salon seul deux heures de temps ñu def le tour du Sénégal pendant deux heures de temps ñu def le tour des préoccupations yi nga xam ni moom la am pour Sénégal pendant deux heures de temps ñu def le tour ci yéeneem bi mu am ci Sénégal mais li ëppoon solo en plus de loolu mu wax moo doon ma xool ndax ki ma xam toujours ci détermination pour le Sénégal et pour la combat des Sénégalais kooku moo fi ne ba tey ma gis exactement ni même nit ki ma mos a xam ci bëgg Sénégal ki ma mos a xam ci taxawu Sénégal ki ma mos a xam ci nekk ci ambition bi nga xam ni moom la ñu mos a partagé nekk ci lu defar Sénégal ci jub nekk ci lu defar Sénégal ci jaar yoon moom laa toogal et loolu je m'en réjouis je parce que doon na yéeme nga toog gis keneen si fàttaliku nga fa ngeen jaar ak sacrifice ngeen def mais je me de voir que nit ki nga xam ni dara ñoru ko lu dul Sénégal dara ñoru ko lu dul lu ko jëmale kanam kooku laa toogal et à travers lui ak message bi ma jox nuyoo yu mu ma jox donc mu mën a jàpp ni exactement loolu moo nekk ci président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et loolu pour qui connaît la politique da ngay xam ni dafay am une conséquence politique et les choix politiques il faut les faire en rapport avec deux en rapport avec sa conscience et en rapport avec la volonté du peuple sénégalais et j'ai interrogé les deux déjà bi photo bi génnee rek gis ngeen comment ça a été accueilli par les Sénégalais comment cette mu gën ma conforter ci idée bi ma mosa am ci Sénégalais mooy danoo bëgg lu rafet danoo bëgg lu baax danoo bëgg surtout diggante yu nu naw toujours muy des toujours muy gën di consolider wu. leen ciy gërëm bu baax a baax parce que Sénégal nag defar ko moom loo ci mën a dégg mooy àndandoore defar ko loo ci mën a dégg mooy rafetal mu rafet rek et bi photo bi génni gis naa au niveau national international comment le Sénégalais yi accueillir donc cette rencontre là di leen ci gërëm di leen ci sant bu baax a baax a baax di leen wax ni donc bi ma toogee ak moom ñu waxtaan bu baax a baax waxtaan ci senegal bu baax a baax ma waxoon fii ni loolu moo tax ma duggoon ci coalition moo tax may dellusiwaat fii ci devant les ni comme waxtaan boobu am na à partir d'aujourd'hui j'ai décidé avec le parti et la coalition de me désister de la coalition Sàmm Sa Kàddu et et et et d'y engager tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants, ñoom ñëpp fu nu mën a ne ça peut être douloureux pour certains ça peut être très douloureux pour certains parce que xam naa ni jotoon nañu sore ci biir comme pour man mii d'ailleurs mais di leen engagé fépp fu ñu mën a ne à faire une translation vers les comités électoraux yi nga xam ni Pastef taxawal na ko mais également engagé le combat pour une majorité diggante bi ma xam ni gisuma ak Ousmane waxtaanuñu xam ngeen ni taxawal nañu coalition taxawal nanu intercoalition yooyu yëpp joué naa ci ay rôle mais ku xam na may doxee xam nga ni benn jamono am na gêne bu ma habité te gêne boobu li koy indi du dara lu dul respect bi ma am ci ñu ma nekkal mais également respect bi ma am ci sama conscience parce que daa dem ci mbir ba ci biir sentir ni loolu c'est intérieur sentir ni quelque part am na lu lay gêner pour nga mën a ñëw taxaw lii nga xam ni moom ngeen xeex ñetti at yi nga ñëw taxaw ni yaa ngi koy boobu la gêne bi nga xam ni kii nga àndal ñetti at yi wax nga lu ne ci moom devant sénégalais yi ñaanal nga ko fu ne ñu gisaat dara amul seen diggante senegale yi amul dara lu mu jàpp seen diggante nga war a toog di wax leneen mu gêne ma fi ma jógee parti bi ma nekkoon ku ne xam na ni même ba ma fa jóge amul un seul mot bu ma mën a yëkkati teg ca kama àndaloon parce que loolu quand dafa ne ci man dafa ne ci man moo tax au fur et à mesure may avancer au fir et à mesure gêne boobu di ma habité te mënuma par respect ci ay nit nekk ay nit ñuy sóobu di nekk ci mbir sore ci may continuer di def semblant wala continuer di mel ne maa nga ca te nekkuma ci moo tax am na yu am gisu leen ma te même bi loolu amee it ñi nga xam ni séqal naa ko séq naa ko ak ñoom ca coalition bi ma ne ci ay waxtaan privé barewuñu wax naa leen ni vraiment respecté naa ñi fi ne te xam naa ni sama doxalin bii may def ci démission lay mujjee c'est-à-dire même bu lii amul woon même bu lii amul woon même bu lii amul woon avant ñuy dem élection ku xam Déthié nekk ci mbir te gisoo ko ci ci démission la doon dem démission par respect ci ñi ma àndal ñuy bañ continuer di foog ñoo ngi ànd ak ki nga xam ni tey jii nii mi ngi fi te newu fi mais aussi par respect pour les sénégalais nekk ci mbir te fesoo ci bu dul woon sax toog ak Ousmane ci foofu la doon mujjee ndaxte ku ne xam na ni lu ma ne rek je suis à cent pour cent dedans bu ma demee ba am ci genre rek commencé ci am lu may santi je recule et pour dire que même bu li amul woon ku gis dernièrement ni ma doxalee par respect ci ñi ma nekkal jamais du ma woon continuer di doxaleeg ñoom noonu dama doon également de façon très claire démissionner parce que doon na jafe may toog man di attaquer Ousmane di toog di attaque le président Diomaye alors qu'il n'y aucun problème alors que sincèrement au fur et à mesure ñuy avancer may gis ni c'est un peu compliqué pour moi. Parce que cette transition n'était pas du tout simple. Et comme yàlla dafa def ma am respect pour képp ku may àndal am ko pour les Sénégalais moo tax mënuma dans tous les cas continuer doon nekk ci loolu te Sénégalais yi xam nañu xam nañu lu ma nekk rek maa nga ca cent pour cent te lii ma wax ni bis naka tey ci laa ne dinaa ci nekk à deux cent pour cent dinaa nekk à deux cent pour cent ci li triompheloo les listes de du régime les listes de Pastef lépp liy triompheloo les listes yi nga xam ni tey jii nii moom la président Bassirou jomaay Diakhar fay teg et le premier ministre Ousmane Sonko. di jéggalu coalition bi kilifa ya fa nekk yëpp di jéggalu intercoalition bi kilifa ya fa nekk yëpp parce que bu nekk ci ñoom ñaar liggéey naa ci techniquement lépp lu ciy xalaat joxe naa ko des propositions def naa ko ci mais ku nekk ci ñoom xam ne respect bi ma am ci ñoom kon loolu laa ni woon dinaa ñëw jàkkaarloo ak sénégalais yi wax dëgg la di gërëm bu baax délégation ya fa ñëw yëpp kilifa diine boo leen mos boo leen xam ci Sénégal ak famille bu mu mën a ne ci senegal maa ngi koy gërëm di ko sant ndaxte ku ci ne directement walla indirectement woote nga walla yabal nga ña nga xam ni yaa nga ñoom nga ñoom xam ni am nañu ay relation ak man et ñooñu bare nañu mënuma ñoom ñëpp lim leen mais vraiment di gërëm bu baax sëriñ Moussa Mbacké Nawel di gërëm bu baax Serigne Abdou Khadr Bassirou Mbacké di gërëm bu baax Cheikh Bara Ndiaye lim ci dox kenn mënul wax nu mu toy di gërëm bu baax sëriñ imam Dianka di gërëm bu baax sëriñ Ibrahima Ndiaye di gërëm bu baax tout les responsables de Pastef tous tous les responsables de Pastef Amadou Ba tout le monde di leen gërëm ci taxawaay bi ñu am ak li nga xam ni dox nañ ko et aussi di remercier ginnaaw bi ma remercier tous les Sénégalais ak toutes les Sénégalaises ñu nekk biir réew ak bitim réew di remercier tous les militants responsables et sympathisants de PASTEF parce que gis naa ni ñu accueillir nouvelle bi à travers le monde les Ousmane Tounkara j'en passe tout le monde gis naa ni ñu accueillir nouvelle bi di leen ci remercier bu baax képp kuy militant ak militante PASTEF ginnaaw naturellement bi ma remercier tous les responsables et militants et du parti et de la coalition ñoom Pape Alé colonel Kébé tout le monde maa ngi leen di remercier ku lim juum ku di remercier naturellement ñi nga xam ni ñoom laa bokkaloon coalition Yewwi Askan Wi ñu nekk tey ci mouvance bi ñoom ñëpp di leen remercier ndaxte lu rafet moo rafet et ku ne na nga ko mëne na nga ko sentiré témoigner nga loolu mais di remercier encore une fois les Sénégalais ak les Sénégalaises parce que j'ai vu ni ñu soppee loolu nga xam ni moo am li ma ci mottali rek mooy tur ci liste kenn mënu ko génne wante bu ñu demee ba tur boobu sama tur Déthié Fall ci liste ba jàll assemblée nationale ma koy wax devant les sama désistement mooy une démission démission bi nga xam ni ka topp mooy jël poste ba parce que du ma jël mukk poste bi nga xam ni tey jii nii joxe naa kon loolu mooy li wér mënoon naa ko def it après élection mais j'ai préféré def ko léegi parce que lu tax ma préféré def ko léegi moo doon dina ma diis ma duggeeg philosophie coalition ci biir assemblée ba pare à l'intérieur de l'assemblée mu fay quitter di demaat feneen moo tax ma préféré def ko léegi nga xam ni Sénégalais yëpp daanu xam ni duggeewuma philosophie boobu biir assemblée nationale et par respect aussi encore une fois ca ña ma ko séqal par respect aussi ca ña nga xam ni ñoom laa nekkaloon ci coalition bi moo tax ma préféré def ko léegi au lieu ma koy def après parce que ça pouvait se faire tout de suite comme ça pouvait se faire après mais j'ai préféré de faire tout de suite pour ne pas duggeeg mandat boobu assemblée duggeeg philosophie bi assemblée et à l'intérieur de l'assemblée may soogaa di mën a génn di def leneen loolu day diis moo tax def ko léegi nga xam ni la conséquence elle est tirée même bu loolu jàllee donc ki topp moom mooy jël parce que il y une démission directe et cette démission elle va être douloureuse moom lay demander à tous les responsables ñi nga xam ni ñoom ci département yi nekk ci liste bu yàlla defee it ñu jàll ñu mën a def la même chose une fois à l'Assemblée nationale xam naa ni jot nañu sore ci intercoalition bi jot nañu sore ci coalition bi mais loolu laa leen di demander parce que nit mënoo bàyyi li téye booy bàyyi da ngay bàyyi lépp et je comprends que pour ñoom am nañu ci amoon ambition député et je le comprends mais ambition pour le développement du pays moo ëpp njariñ lépp looy gis comme et ku xam ni ma mos doxee xam ni mosuma am ambition pour poste j'ai toujours eu de l'ambition pour le développement du pays autrement du ma mosoo nekkoon di dëmmooyu li ma dëmmooyu yëpp te ngeen xam ko assemblée nationale kenn umpulewul ni ba ma fay ne je l'ai dit terrain yi doon joxe pour les députés mosuma ci jël terrain je l'ai dit tout le salaire que j'ai recevé était intégralement versé dans un compte bi nga xam ni ci Sénégal yi lu doon jëm intégralement Assemblée nationale ba ma fay nekk je n'ai jamais reçu lu dul carburant bi nga xam ni moo doon nekk ci euh, en ticket en billet mais carburant bi doon jëm ci carte électronique dafa am ku ma ko dijjee woon je l'ai jamais pris pour dire que moon engagement a toujours été un engagement pour le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi je demande, même les autres responsables qui sont sur les listes, aussi bien pour le parti que la coalition, nous avons cette même philosophie. Détournez-vous de cela et restez seulement ci préoccupation peuple sénégalais bi aux côtés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et aux côtés de mon ami et frère le premier ministre Ousmane Sonko ñu tabax Sénégal te nag lépp luy expertise lépp luy disponibilité lépp luy sérieux yëpp luy rigueur dans la conduite des affaires c'est ça qu'on veut mettre à la disposition du pays et à la disposition de ses nouveaux dirigeants parce que li ma gëm mooy Sénégal war naa mën a nekk war naa mën a yegg fépp fu beneen réew on a les ressources humaines qu'il faut on a les ressources naturelles qu'il faut on a également lépp li nga xam ni mooy comme koom buñ ko defaraatee comme direction bi nga xam ni moom la ma président Ousmane Sonko expliqué bu nu continuer ci direction boobu on va naturellement yóbbu Sénégal vers l'émergence et donc on encourage cette direction et on amènera toute l'expertise le sérieux la rigueur toutes les compétences bi ngeen ñu xamee on amènera ça sa que Sénégal mën a yegg foofu loolu laa bëggoon wax en wolof li ko résumer très rapidement en français